aca finalo yàlla wara ba dem na kan waxum ak dem na ndeñ taali paaka war na mbaam ma ne lu waay doon jaay tey mu lamb xuutar xuutar beex xabar xabar bi ku ci yàqoon waxu jàmbur dang ko defar final poids fii ci ndumbuj les de Zuni ñoom ñoo fi woote woon ndeysaan tegaloon bëri mise un million cinq poids léger cinq cent mille poids lourd un million poids yi Mame Faly moo ko jël ci kaw Fodé Mbissane poids lourd bi moom moo sëgg noonu diggante Gadia bu Moundé ak ki nga xam ne moom mooy Sa Thiès bu Thiaroye ndeysaan di bëggee képp kuy bëggee Zilo TV rawatina ma waa Moundé maa ngi leen di siyaar ndeysaan di bëggee grand Omar Mané frère la ndeysaan ci ki nga xam ne moom mooy Gadia Mané di bëggee grand Ousmane Mané wala Ousmane Badji maa ngi koy siyaar bëggee naa ko di grand frère ci Gadia Mané la France borom munde siyaar naa ko bëggee naa ko grand ada Europe borom munde borom Espagne maa ngi koy bëggee siyaar naa ko ndeysaan di bëggee samay ami d'enfance seeni Sadio wala Osni maa ngi koy siyaar bëggee naa ko di doom ci ami dem ak Jibril Sadio ndeysaan di bëggee ki nga xam ne moom mooy cek cek borom Canada maa ngi koy siyaar bëggee naa ko Erickson wala Neyer maa ngi koy siyaar bëggee naa ko Mansour Diouf wala Zo le gendarme maa ngi koy siyaar bëggee naa ko Ado wala Raphaël le maa ngi koy siyaar bëggee naa ko di bëggee grand Mamadou Ndong borom Mboyar borom Touba waa di bëggee grand Mamadou Ndong borom Sing Mboyar borom Espagne maa ngi koy siyaar bëggee naa ko Moussa Thiaré Buel Bandi maa ngi koy bëggee. Yvonne National kontaane naa ko Abibou Abou Gueye soldaaru baay maa ngi koy bëggee Sa Thiès Sa Thiès am na loxo ci ngemb Sa Thiès na ko Tampon Ndaw mbër plus maa ngi koy siyaar tonton Saliou Ndiaye maa ngi koy bëggee grand Babacar Fall le simal bëggee naa ko ndeysaan di bëggee grand Demba Grand Demba borom parcelle unité 18 maa ngi koy siyaar di nijaay ci samro ndeysaan di bëggee waa mafia ba waa parcelle 22 maa ngi leen di siyaar mafia ba ca néeg ba Ndour le policier maa ngi koy siyaar Babacar Ndour siyaar San borom film la borom mar faafa ko Hitler suma waay suma xarit di bëggee waa jam rawatina suma papa Sane Diouf maa ngi koy siyaar bëggee naa ko suma bàjjen ayu laa ngi kontaanee nako. ko Yaxaya Diouf maa ngi koy bëggee Ibu wala Oustaz borom Espagne maa ngi koy kontaanee lamaan maa ngi koy siyaar bëggee naa ko borom jaafat Sa Thiès Gandia laa ilaha illallah Sa Thiès daan na jël na lambu ci kaw Gandia Mané